siis ama yombal la waree caatu guy gi waree lamsaar amit sifle na combat bi dox ci diggante siis ama moo yor ngemb lu ñuul li ak ki nga xamante ni ni mooy caatu guy gi siis ama moo xaw a xees ngi lay waatoo gemboo ngemb ñuul li caatu guy gi moo ñuul gemboo ngembal naat bi ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar xale yaa ngay lewaatoo Ziz Ama Caatu Guy gi Caatu Guy gi ngi seetal seere lampataake yi ñu ngi lewaatoo Ziz Ama Caatu Guy gi ñu ngi lewaatoo Ciss Ama ak Caatu Guy gi arbitre wax na ak ñoom arbitre sifflé waat na ñu ngi lay waatoo ñu ngi lay waatoo ngi a atoo ñoom ñaar. dëgg la yàlla bëgg waaye nag combat bi Ama Thiatou Gouye Ziz Ama Thiatou Gouye. da ngeen a mënta baaraam tàggoo mu nekk septième combat de la soirée yooru na xeex na door na ko remis. Thiatou Gouye ah Thiatou Gouye ñamal na ko de. Ama door nañ ko kuubu daal léegi. déclenché mu ko remis. Ziz Ama Thiatou Gouye gi. Ziz Ama. Ziss daa déclenché mu dóor ko remis. daa guy gi daa na tekk ñu ngi lay too dara amagul. Ziss Ama Thiatou Gouye Gui. mu ngi deme na ñëwet ñoom ñaar xale yi dañoo ñamante léegi. arbitre baa ngi wax ñoom. Ziz Ama am na benn avertissement. ku ne jël na avertissement arbitre sifflé waat na. Ziz Ama caatu gi gi. Ziz Ama. caatu gi gi. demee nañu wet ñoom ñaar. men. waaw dajee am. mais Cissé ma caatu gi demee nañu wet ñoom ñaar. Cissé ma di demee wet. ñu ngi leewaatoo. Ama daa mel ni ku bëgg a def sori. waaye Caatu ngi leewaatoo Caatu Guy gi. ñu ngi leewaatoo. ndeysaan waye ngi way. lambi ambiance. Ciss Ama Caatu gi. ñu ngi leewaatoo. xale yi seen bi yàgg na. ñu ngi leewaatoo. leewaatoo benn loxo. tànk bi ñu teg moo leen jaaxal ñoom ñaar ñëpp fausse garde la ak garde ku ne am na ñaari avertissement ndeysaan sànni na dafa sori ndeysaan dudu yaay kati lay way ay dud sek kooku mooy Demba Sy borom gile kaddu bi ndeysaan ama caatu guy gi ñu ngi lay ato arbitre wax na ak ñoom da ngeen bëre leen yooru na xeex nañu door na ku mu dal daw na taru ko sentire la ko taf na ko tëgg na ko mboot mu jéggi sentiré na ko téyante nañu roof na ko galgal ñu ngi téyante sentiré ko taf na ko delloosi ko ma nga ca wet ga delloosi na ko dóor ci suuf jël bi na caatu guy gi daan ko jël bu rey jël na caatu guy gi daan na la jël bu rëy